jox leen potu ndox ne leen baal ma àq parce que bu ñu boo gisee bu ñu xuloo sax bu ñu wootee mbootaay mag yi fa toog la part du temps du ñu essayer comprendre ban problème moo am kan moo tooñ ak ku tooñul dañuy ñëw rek ne xam ngeen lan la waaw wax ji am na nii eh, faatu jógal nga sukk baalu Cheikh baalu sa kilifa baalu sa kilifa sans comprendre lu tax faatu ñëw ne leen kat man y'a problème wax leen ak kii ñu ignoré loolu mais yàlla dafa may jigéenu sénégalais yi ñuy muñ góor daf leen di def ñuy denc ñuy denc di denc di denc di denc di denc ba bu ñu demee ba mënatuñu ñu sës ne ko xam nga lal la il est temps nga dem te beaucoup doom defoon nañ fi benn émission suuf en silence parce que gëmuñu woon ne ki ñu nekkal dina musa toog ne leen ne ko da ngay dem ma dem en ce moment nag jàq am jàq bi mooy lan bëggul jabar ji ne ko may naa la baat li mu bëgg mooy ñu jéem a régler problème bi mm-hmm. fekk bi muy def xalaatul woon si àddunaam ne kat jigéen dina ko ne musa wax moom jabaram jooju ne ko arrêtel quoi parce que xam naa ne maak yow chemin bi ñu bëgg a defar mënul ne ku nekk dafa war a dem baatam en ce moment si la jigéen ñi di xamee kii valeur am naka lay ñëwee pour aborder waat leen pour neexal leen. Mhm. si la cadeau yi di commencé génn. loo bëgg ma defal la si la chéri yi di commencé génn si la bébé yi di commencé génn di neexal. mais am na jigéen yoo xam ne loo mun ti neexal dañuy na cocc di lay xaar loolu ça fait souffrir un nom te comme ni ko Pros waxee en domaine de couple rey waru fa am bu fekkee yow da nga am problème ak sa jabar sa njëlbeen ba jéem ko régler balaa muy raw parce que bu demee ba sës am na jigéen yoo xam ne bu ñu xësee ba sës ba ne c'est fini pour ñu indiwaat leen peut-être yàlla moo si xëppa ndox bu sedd mais pour ñu nar a ñëwaat nar a vivraat calvaire bi nga xam ne góor baa ngi leen ko doon teg duñ ko nangu. Mhm. donc su boobaa ñoom kit que ñu wax leen lu ñu leen munti wax ay doo sëykat ndax lii rek a tax ngeen xuloo ndax lii rek a tax lii lii lii te l'homme est jaloux naturellement parce que man j'ai vu une femme bi ma lay wax c'est la réalité mu xulook jëkkëram ba ñépp ne jeex na lan la def mu dugal benn photoom toog def comme marié toog ne c'est madame temps te yàlla xam na ne dara amul woon. wax beneen beneen beneen sant. sant dugal ko. jëkkër ji gis ko gënati nag rakkaaju. Mm. fu ne mu dem. jëkkëram la woon. jëkkëram la woon. mais dañu am problème tas wala. non dañu am problème mu ne ko jeex na ku nekk dem. dañu tas dañu tas. mooy séparé wu. wu nañu. non non tas ak séparé wu lu benn dañu séparé wu. mais may nga ko baat peut-être. may na ko wala nee na ko may naa la baat. Ah, kon dañu tas kon mais peut moom comme ni ko góor yu bari di waxee may naa la sama baat. may naa la baat moom fu mu. ñu ne la ba dog na. déedéet. mais si. non defal ndànk. am na loo xam ne dañ lay ne il faut mu am xaw ma ay quatre témoins cinq témoins xaw yooyu. non fase naa la sëy ba sañu xam-xam yeggu si si si. mooy sa xam-xam moo fa yeggul yow. yow ak yow. waaye doomu rek buñ la ne may naa la baat sëy ba ba dog na. yaa ma dégg donc. maa la ko wax. lim ko doon def naqari ko kooku tamit am fu mu jàpp rek. waa ji gis loolu affaire bi def ko problème mu demaat si kër famille boobu fekk kooku waxul sax ak famille am waa ji gën a dof. mais est-ce que dafa marié woon wala doon. non dafa do waa ji la bëggoon. yëngal yëngal. Ah, kon kenn yëngu. mu yëngu bu baax. Mhm. solaat ay dàllam. Ah. defaat lu nekk. mais en fin de compte après daf koy récupérer ndaw si baal na ko. pour walla ne bu fekkee ñun dañu war a xaar. pour jàmm am rek ñu neexal sañuy femmes wala pour ñu jox leen ay cadeau loolu y'a problème et y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent comme ça da ngay ñëw toog sa kër ak sa jabar ndax ko gisuñu ne keneen bëgg na la wala keneen intéressé na ci yow duñ la toppatoo non du loolu am na sax loo xam ne méngoowul ak nga nekk ak sa borom kër ñuy gis ne keneen dafa intéressé non je ki nekk si borom kër ki nga xam ne da nga ne dafa tas dafa tas voilà xam nga léegi du waaj mu wane ne keneen intéressé moom le gars il va devenir fou te ñu ñëpp fiir góor yëpp góor góor góor yi si ëpp laa la wax dañu jaloux fiir te bu ñu ko won seen jabar mm. donc si y problème je crois nga koy tooñ moom muy muñ di muñ ba dem benn instant mu toog foofu nag les propositions commencent ngay seeti ay mbokkam ku nekk di wax jéem a arrangé waat cas bi mu naj fi mu naj moo tax luy jàmm nañu def li nga xam ne moom la ñu war a def avant problème yooyu di commencé mm-hmm. parce que une femme c'est une femme c'est nos mamans c'est nos nañ leen di neexal nañuy waxtaan ak ñoom nañ leen di jox ay cadeau mm-hmm. nañuy baalu bu fekkee ñun ñoo tooñ ñu baalu sànq procès ngi ne fecc mais feccal sa jabar dara nekku si tu peux pour ta femme yéen ñaar la keneen nekku fa même bu fa keneen nekkee tu t'en fous parce que c'est ta femme mm-hmm. quel est le problème donc dafa am yoo xam ne ñun def nañ fi benn émission ñu ne ñun au Sénégal waroo ànd ak sa jabar sax neexal ko si mbedd bi kott ko chuchute kook affaire yooyu ñu ne loolu bokkul sañu aada. Mhm. mais pourquoi. parce que bokku ci. mais ta femme c'est ta femme. mais après. yàlla bi nga xam ne moo ne yéen takk leen yéen a moom. waaw mais kooku kañ boo ànd ak sa femme ngeen jàppante ñaari loxo. di doxantu nii mais quel est le problème des sénégalais lan lañ si war a wax. dafa am ma lan la si war ma nekk. ak lan la si war ma nekk worma dafa am worma. bokkuñu nga jël jigéen. oui. war ko teg comme. comme lan. même les hommes sénégalais. waaw si boobu ñu fi doon wax sànq ak Safia. dangay gis ku ànd ak jabaram sax supermarché. oui il y mu xëccal ko euh, nu mu tudd chariot bi ànd ak moom di koy ne madame ni fële lay taxaw si kanam. dem yoon waaw mais loolu buy am. Mm-hmm. bu fekkoon da nga daan nekk si wetam. Mm-hmm. di koy chuchoter. ngeen ànd si oto mu wàcc nga ibbil ko porte ne ko madame wàccal te jaatal ko porte bi di koy chuchoter boo leen amee problème sax dina xam ne kii. am na noo xam ne melu ko mais wanoo ko benn intéressement wanoo ko ne yow yaay soxna si yow laa bëgg yow yaay sama yaay yaa jural yaa ma jural samay do wan ko loo xam ne sax dina am confiance mhm. mais y a beaucoup de yoo xam ne dañuy dem ba perte espoir si seen jëkkër parce que l'homme sénégalais est naturellement comme ça li mu bëgg mooy kilifte d'accord ñun la yàlla wax ñooy kilifa yi mais kilifte dafa am noo xam ne nga koy def ak jigéen parce que jigéen du force jigéen du ay saaga jigéen du ay dóor jigéen du ay naxaral jigéen pour muy kontaan la bu kontaanee rek kër gi neex. bu jigéen kontaanul kër gi neex gis nañ fi ñu bari dañu am problème ak seen jabar maigrir ñaaw kenn xàmmeetu leen. ñu ngi fii Sénégal laa lay wax nii bu ñu xuloog jubóog seen jabar gën a belli yana day fekk mu bëgg bi quoi. day fekk xol bi neexatul nelawatuñu yaa góor yoo xam ne dañuy tëdd bu leen seen jabari fasee du ñu nelaw guddi je t'assure ils ont bu ñu demee bureau du ñu xam lu ñuy def bari na fi. te boo waxee ñu la la non c'est des problèmes fekk seen jabar moo leen nar a rëcc donc il faut que ñu xam valeur jigéen jox leen seen cër quand il est temps ñu bañ a xaar ba problème am ñu leen di commencer susciter di leen wax yaay nii yaay nii kooku moom dina am benn moment bu fekkee yaru lan moom laa la wax. ni ñu yaree xale yu góor yi ñuy jaay dëgër di jaay. moom laa la wax bëgg wane mais ça c'est grave Safia moom laa la wax au début ne la. ñun nit ñu yaree mu di ak ñu bari góor warul jooy si kanamu jabaram góor warul neexal jabaram góor warul baalu jabaram dangay toog ak ay kilifa ñu ne la góor warul baalu jabaram am na benn paa bu daan toog fii bu fi nekkoon loolu la lay wax daf lay ne góor warul baalu jabaram góor warul góor warul jooy ci kanamu jabaram loolu loolu loolu loolu lan moo ci dérangeant loolu góor lu muy jooy dama la ne dama la ne dama la ne góor jooy si kanamu jabaram waaw quel est le problème maa laaj yow quel quel est problème góor ñàkk jooy. attention non non non dama la ne dama ne. waaw ñun Safia nee na ndax du si yar bi. ma ne ko tu as parfaitement raison parce que ñun ñun ñu yaree mooy góor mooy kilifa kër gi. waaw góor warul sax jabaram mere ko mu jooy wala góor warul sax jabaram mere ko mu dem na ko baal ma ak loolu laa la wax. waaw lan lan la lan la góor lan la jooy jooy pour lan. yow waxal doo jooy. non dama la laaj jooy pour lan. parce que jabaram moo ko mere ne day jooy. waaw ah, yow da nga jooy. dama la ne. doo de laaj ko laaj ko laaj laaj ko moom mi jooy loolu da nga jooy yow. ndax man damay jooy. waaw. bu ma gën a dégg. waaw bu ko jooy jaree ma jooy. ndax mus nga jooy ndax mus naa jooy. waaw waaw. ok c'est bon léegi yow après ñëpp dañu war a jooy. waxuma la ñëpp war